waaw asalaamaaleykum waaw mbokki kaarang yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen nuyu di leen wax euh, baal leen ñu àq ci koor gi ñu nekk nii ñu ngi leen di baalu àq bu baax di leen baal euh, di wax ne lépp lu ñu fi jaamu yàlla ci koor gi yàlla nangul ñu ko ñu ngi koy ñaan suñu borom bu baax a baax jafe-jafe yi nga xamante ni ñoo ngi ko nekkee nag ci koor gi muy mbas meek yooyu noonu sama borom jëlee ko fi euh, ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci barki koor gi ñu nekk waaw dañu ñëwoon nag ci benn waxtaan bu ñu amaloon fii euh, Karang euh, collectif des usagers pour les forages de kaarang ñoo bëggoon a def benn waxtaan boo xamante ni leeral askan wi li nga xamante ni ñoom seeni mébét la seen luñ bëgg a leeral la dinañ ko wax ci biir ñoom ci biir euh, éléments yi dinañ wax lépp luñ fi bëgg a leeral seeni mbir la ñun nag dañ leen di defal présentation bi rek comme saa ñu def fi waxtaan wu yaatu problème yi fi nekk ak jafe-jafe yeeg li nga xamante ni teguwut si yoon ci ñoom li ñu wax lañ bëgg a leeral askan wi bu ko defee noonu la demee ngeen seetaan ko incha allah ñu tegal leen ko si seen ñaari tele yi nga xamante ni ñoo fi nekk bi nekk euh, Kaarang di bu Mamadou Sow beneen bi nekk Santhi euh, ñu gën cee ñu gën koo xam ci Saloum TV di bu Pape Réseau kon wasalaam ñu ngi tàmbali ñu jox euh, kàddu yi ñoom ñi nga xamante ni ñoo. Euh, composé euh, collectif bi ñu waxtaan ak yéen yaakaar naa ñu ngi nii toog kenn du leen ko présenté ñëpp xàmmee nañ leen bu ko defee ñu commencé ñu waxtaan sama gars yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu. jaa ngeen ñu ngi leen di fay bu baax. waaw ok mën ngeen dàmbali. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyoo di nuyu waa Kaarang yëpp ñun waa collectif des usagers des forages de Kaarang. ñu ngi wax kon ci turu collectif boobu noonu di nuyu waa dëkk bi yëpp kilifa diine ak kilifa aada yi di nuyu population yëpp góor jigéen mag ak ndaw yëpp. ñi ngeen gis ñu toog fii yëpp nag ci collectif bi la ñu bokk xëy na loo gis rek dafay am porte parole maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ŋànk kàddu gi. Euh, dañ bëggoon ñëw ak waa Kaarang tuuti ci benn waxtaan waxtaan bi nag mu ngi jëm ci li soxal Kaarang surtout. wàllu forage yi man ci côté boobu laay waxtaan parce que dañ gis démb maire mu def benn sortie ki sunu TV doon am yu muy expliqué ci comité de pilotage bi ak décision yi nga xam ne ñoom jël nañ ko te am ci ay rëq-rëq yu bëri yoo xam ne moom monsieur le maire ci émission boobu constaté nañ ko ci loolu nag ñun suñu nekkee ay usagers wax dëgg yàlla du ñu seetaan benn yoon lañ doon xeex démb ak barki démb loolu la ñuy xeex duñu seetaan benn yoon waa Kaarang ñu leen di jox information yi nga xam ne information yooyu nekkul information yu wér. damay commencer d'abord ci li fi jëlee li ñuy wooyee ASUFOR mooy association des usagers de forage loolu moo fi nekkoon bu njëkk état du Sénégal moo ko fi tegoon état du Sénégal moo dem ba neex ko mu indi coppite. daal di ne asifor yooyu daf leen fiy jëlee remplacer leen ak lu ñuy wax OFOR mooy office des forages ruraux OFOR yooyu nag bu ñëwee liy ŋànk forage yi dañ koy wooyee comité de pilotage am na juróomi weer ci ginnaaw gisoon ngeen collectif bi taxaw biir Kaarang di xeex xeex ngir lan ngir comité de pilotage bi nga xam ne mooy comité de pilotage yu OFOR te ŋànk ñaari forage yu Kaarang yi monsieur le maire ni mu ko tegee jaarul yoon parce que dafa xëtt li nga xamante ne bi moom mooy charte yi te nag yaakaar naa ne bu ñu jógee fii wax dëgg yàlla gannaaw moom dafay expliquer rek ñun dinañu expliquer ba pare wan waa Kaarang li nga xam ne moom mooy texte yi pour won leen ne monsieur le maire li mu def ci comité de pilotage yi jubut ba pare topput li nga xam ne mooy sart bi lii ma téye nii sart bi la lii ma téye nii moom mooy texte bi nga xam ne moom ci lañ dëxëñ nan lañ war a composer nan lañ war a former nan lañ war a tëralee li nga xamante ne bi moom mooy comité de pilotage dinaa liir n'est-ce pas charte bi dinaa ko tekkil waa Kaarang après dinañ leen wax li maire def moom ngeen xool li charte bi wax ak li maire def ni mu waroo parce que l'homme n'est pas ce qu'il dit il est nit melul nu mu wax nu mu jëfee la mel parce que dafa yomb trop toog ci plateau télé wax lu la neex te bokkul ak li nga xam ne moom nga def fokk ñu leeral waa Kaarang charte bi mu ngi nii charte bi lan la wax ci article premier bi en ce qui concerne le comité de pilotage premier point bi def ne le comité de pilotage est composé de trois représentants de la collectivité locale collectivité locale fii ci Kaar ak nag moom mooy conseil municipal bi parce que population bi askan bi ñi leen représenté ñoom ñooy les 46 conseillers municipaux yi nga xam ne ñoom ñoo am kaarang premier point boobu la njëkk a violé ndax moom dañu dégg mu ne conseil municipal bi maanaam collectivité locale bi ñett ñi teg si wax ne ñoom ñoo ko war a représenté moom la mu ne ak kan ak Wuri Diallo ak kan mu ne ak Dégène Cissé waa léegi man mii di wax ak yéen man conseiller municipal la kii ci sama ndeyjoor conseil municipal la Daouda Ndiaye kii conseil municipal la Babacar Badiane grand bee toog grand Ousmane Sène conseil municipal la kii ci sama càmmooy docteur Abdourahmane Diallo conseil municipal la ah kële conseil municipal la Balla Diop waa léegi laaj leen conseil municipaux yii est-ce que maire mus naa oo benn yoon conseil municipal pour ñu tànn ñett ñu leen di représenté wala moom dafa jàpp ne dafa war a tëju biroom rek xool ñetti conseillers yi mu yi mu yi mu yi mu bëgg rek mu bind leen ci fay ne ñii ñoo war a représenter collectivité locale bi. kon xam ngeen ne violé na texte bii parce que texte bi li mu ko waxoon mooy mu conseil mu convoqué 46 conseillers yi mu woo ka ñeen fukki conseil juróom-benn yëpp démocratiquement ne leen tànn leen ñett conseillers yi leen doy pour ñu représenter leen ci comité de pilotage bi te defut loolu kon benn jalgati bu njëkk mi ngi noonu ñu ñëwaat. ci texte bi lañuy dellu rek comme moom nee na li mu def ci texte la ko teg acca texte yi la ñuy dellu rek parce que texte yi moom moomut ko ñun moomuñ ko yéen moom leen ko texte yi état du Sénégal moo ko indi ñun ñëpp ñu war koo euh, sàmm war ko saytu léegi deuxième point bi mooy daf ne deux représentants des éleveurs ou autres activité dominantes Kaarang am na association communale des éleveurs suñu papa Mamadou Ndioba jiite ko nekk président bi damay wax waa Kaarang nañ dem si président boobu jiite éleveurs yi ñu laaj ko ndax moom yëg na bi ñuy tànn kii waral a représenter éleveurs yi ci comité boobu noonu mësul yëg li nga xamante ne bi mooy <clears throat> tànneef boobu noonu kon maire moo tànn aussi foofu noonu ku ko neex daal di ne kii moom mooy ñëw représenter li nga xamante ne bi mooy éleveurs yi foofu tamit jalgati na sart bi ma téye muy ñaareelu jalgati ñetteelu jalgati ñu ne un représentant par village Kaarang nag du commune rurale commune urbaine la bu doon commune rurale la comme Samba Gueye nga xam ne dafa am 44 villages ñeent fukki village ak ñeent su boobaa dañ naan village bu nekk dina am benn représentant mais fii commune urbaine la ñu ngi am sept quartier juróom-ñaari quartier kon quartier bu nekk dafa waroon am benn délégué bu koy teewal ci li nga xamante ni mooy comité de pilotage bi est-ce que maire def na loolu maire deful loolu dafa tëju bureau quartier bu nekk mu xool fa benn waay bu ko doy mu bind turam du noonu xam nga maire lu mu waroon def dafa waroon dem ci quartier bu nekk mu dem ci kër délégué de quartier bi nekk ool waa quartier bi yëpp ñu dajaloo sa kër assemblée générale waa quartier bi tànn ka leen doy ñu andil ñu ko ci comité de pilotage bi ni konoon su boobaa waa Kaarang ku ñu tànn rek ñu xam ne ñii kii quartier bi ñoo ko tànn quartier yëpp def noonu muy set kii set représentant ñooñu ñooy représenté euh, quartier yi. waa léegi texte yi loolu la wax ci wàllum comité de pilotage maire deful loolu kon da ngaa jalgati charte yi da ngaa bafoué li nga xamante ne bii mooy loi bi def ko nu mu la neexee te loolu duñ la ci bàyyi parce que ñun encore une fois amuñu problème. ak ña nga xam ne ñoo nekk ca comité de pilotage ba amuñoo ak ñoom benn problème ña fa nekk ñëpp ñii suñuy rakk lañ ñii suñuy mag lañ amuñu ak ñoom benn problème mu leer mais yow mi nga xam ne yaa jalgati jalgati charte yi yow lañ am ak problème parce que charte yi yow moomoo ko da nga ko war a respecter à la lettre yow lañ am ak problème mais ñun kenn mënuñu jaxase ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci comité de pilotage parce que ñooñu duñ ci lenn parce que dañ leen a woo rek boole leen ñoom ñu ñëw ñooñu amuñu ak ñoom benn benn problème ñooñu taxu ñuy xeex mais li tax ñuy xeex mooy këyit gi charte bi ñu war koo respecté te respecté wuñ ko te heure boo toogee ci tele bi di wan waa kaarak ne da ngaa respecté texte te respecté woo loolu la ñuy xeex. bu ñu jógee si loolu comité de pilotage bi nga xam ne nga ne yow yaa ko jiite d' abord ñun li ñuy ñëkk ñaawlu sax mooy parce que gii jege ñu rek comité de pilotage bi dañ la ne loi bi daf na la. comité de pilotage bi ki koy jiite il doit être un représentant de la collectivité locale waa kooku mën na nekk en un simple conseil municipal pourquoi nga jàpp ne euh, texte bi yow lay wax ak yow maire kon texte bi waxut ak yow beneen bi mooy créer nga ba créer benn post boo xam ne texte bi andiwu ko maa ngi siy ñëw léegi lan la loi bi wax daf ne représentant quartier yi bu ñu ñëwee représentant éleveurs yi ñëw représentant maraîchers ñëw ñiy représenté collectivité locale bi ñëw ñooñu l' ensemble de ces délégués là ñoom ñooy composé li ñuy wax le comité de pilotage comité de pilotage boobu moom mooy organe délibérant maanaam moom mooy jël ay décision e comité de pilotage boobu ñoom dañuy fal en leur sein ci seen biir un bureau restreint de trois membres wuutee lool ak yow li nga def jalgati waat nga texte yi foofu beneen yoon encore parce que texte bi daf na la bureau bi ñetti membre dong lay am président secrétaire général trésorier général yow fal nga ba fal poste vice présidente te loolu gisoo ko ci texte yi kon bokk na ci luy ormal doomu aadama bokk na ci luy ormal njiit mu respecté texte yi parce que balaa nga naan naam da fay ne beneen bi mooy ginnaaw bi nga xëtte sart yi nga xam ne moom nga waroon topp nga xëtt ko nga ñëw démb ci sa communication dégg nga ne yow xamoo exactement ban som la fi Asifor bàyyi yow xanaa defoo passation de service yow waa Asifor bii weccoog yow ay lenge bind dëxëñ liñ fi bàyyi yëpp ci ay këyit xaatim teg sous-préfet bind représentant hydraulique signé ñooñ ñëpp signé ñu la këyit yi journaliste bi taxaw ci télé bi laaj la lan la fi Asifor bàyyi nga ne xamoo ko ba pare sañ see exécuter ay dépenses mais ça c'est grave ça c'est grave yow nga toogaat sa biro def émission ci benn audio ñu dégg nga ne comité de pilotage bi dégagé na un montant de quatre millions quarante six mille francs répartis comme suit yaa ko wax de je reprends propos nga ne trois millions cinq cent quarante six mille pour nga subventionner les factures de fin avril cinq cent mille francs pour adduction d'eau au niveau de la police waa léegi PV bi génn procès verbal même comité bi génn ñu gis fa un montant de quatre millions waa monsieur le maire wala président comité de pilotage woro boobu non ñu koy expliqué le fii ñu gis fii si sa audio yow nga ne 4 millions 46 mille ci biir li nga xamante ne bii mooy procès verbal bu comité de pilotage bi génne ñu gis fa 4 millions waroo ngi noonu kon loolu war nga ko wax waa Kaarang beneen bi mooy ni nga décaissé xaalis boobu baaxul encore une fois parce que yow yaa wax aussi que ne yow décision bi yaa ngi ko jëlee ci benn restaurant de la place yow ak sa secrétaire ak sa trésorier général tu avais convoqué le bureau restreint ma lay fàttali ne ci addina ba addina jeex amul benn bureau buy jël décision bureau li ñu ko xamee mooy exécuter une décision c' est le comité de pilotage qui devait prendre la décision ba nga waree dekkee sa xaalis da nga waroon convoquer tous les membres du comité de pilotage ñu toog ñoom ñooy jël décision bi suñ jëlee décision bi maintenant cette décision va s'imposer n'est-ce pas au niveau du bureau le bureau restreint moom mooy exécuter décision bi jël décision pare exécuter ko waa kan mooy kan mooy tourner contrôler bureau bi est-ce que le bureau peut se contrôler lui-même loolu amul fenn c'est le comité de pilotage mooy jël décision jox ko bureau bi bureau bi exécuter après la su boobaa le comité de pilotage dina mën a ñëwaat tourner contrôler waat li nga xamante ne bi moom mooy bureau bi est-ce que effectivement la décision a été n'est-ce pas appliquée correctement te defuloo loolu kon loolu aussi wax dëgg yàlla ñi ngi koy ñaawlu bu baax ñi ngi koy naqarlu te may fàttali aussi waa Kaaranka ne police ñun lay liggéeyal buñ fa yóbbee ndox ñun lañ ko yóbbul ndox ñun jotee wuñu ak dara waa police lu fuñ toll dañ leen di tàccu di di leen jërëjëfal ci seen liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu koy def parce que ay forces de sécurité lañ yoo xam ne ñu ngi ñuy sécuriser au moment où ñu ngi nelaw waa dama ne mbaam dafa gàtt lool mais si jur gi la bokk président comité de pilotage comme yow nga ne titre boobu nga waxee ci lañ lay tontoo ñaata yoon la la waa poste de santé bii bu Kaarang sollicité nga xam ne kuy mucc si waa Kaarang foofu ngay dem mucc ku feebar balaa ñoo xalaat fen foofu lañ lay yóbbu mënoo leen a régleel ndox ba benn responsable politique moo dem régleel leen ndox moomu. léegi nga ñëw yow 4 ou 5 mois après nga ñëw nga ne waa police depuis 2014 ba léegi ñu ngi formuler demande boobu. xanaa yoroo budget en tant que maire en tant que qualité de maire xanaa yoroo budget de 2014 ba 2020 nga ne waa police ñu ngi la topp ci wàllu ndox te mënoo inscrire problème boobu sur ton budget pour nga régler ko. kon il y problème kon il y a problème donc loolu wax dëgg yàlla rafetlu wuñ ko dara dara dara dara beneen bi mooy balaa may daaneel rek dañu dégg aussi ci sa intervention nga wax nga ne bañ nga ko ba booy def réunion comité de pilotage dangay ngay convoqué yi da ngay convoqué délégué de quartier yi du noonu la war a demee xam nga maanaam ŋaañanam ŋaañanam ŋaañataa ko wel mag xam naa docteur après nga tekki loolu nga tekkil ko ko mu dégg ko xasanal ma xasanal ma taxul ñu xasanal la fu la neex bokk na ci luy ormal doomu aadama muy dund ay charte mu ci wéy comité de pilotage du yaama neex rek dangay dem toog di fekkee ay réunion déedéet du noonu de comité de pilotage ku ci bokkul bokkoo ci ku ci bokk ci nga bokk encore une fois sa comité de pilotage bi ni ñu ko tegee jaarul yoon jaarul yoon te reconnaître wuñ ko te reconnaître wuñ la yow comme président di comité de pilotage loolu reconnaître wuñu ko te waroon nañ gàcce ngaalaamal nag waa Asiforin parce que lëg su lekkee alom na ko gërëmee coy Asifor barku dee moo njaay fii lañ leen xas yekk leen lu mel ni xeme te tey jii day 14 millions 800 mille yi nga xam ne moo nekk ci compte bi nga am sañ-sañ di ci exécuter ay dépenses ñoom ñoo ko liggéey beneen bi mooy beneen bi mooy euh, ñooñu toujours dañ leen doon dañ leen doon xas di leen yekk lu mel ni xeme ñu naan ñun dañuy xeex pour ñooñu noonu ñun xeexuñu pour ma sàmba xeexuñu pour ma demba gis nga yow en tant que Diogane Gomis on a aucun problème avec toi voilà euh, beneen bi voilà maa ngi bëggoon fàtte loolu nee nga waa Asfor bi ñu fi jógee dajale noon nañ xaalis bu bari mais mënuñ koo liggéey mënuñ koo investir waaye yow bu nga ñëwee liggéeyoo xaalis en tant que président comité de pilotage mais da ñëw xaalis bi fi Asfor nekkoon nga jël ko commencé ko di ko investir. te ñu ngi la doon xaar ci yeneen domaines yoo xam ne su ma naataango docteur Abdourahmane Diallo dina ci dina ci ñëw beneen bi mooy dañuy dund benn principe boo xam ne tey jii commune boo dem ah nit ñi loolu la ñuy dund c'est le principe. de réduction des comptes yow nga ne dangaa jiite comité de pilotage nga ne nove en novembre deux mille dix neuf lañ la installé ba mars wal mais deux mille vingt six mois ou sept mois après mosoo defal n'est-ce population yi li ñuy wax réduction des comptes parce que am na pourcentage boo xam ne chaque mois que Dieu fait dafay jóge ci gestion gérant bi di ñëw ci li nga xamante ne bii mooy population bi via le comité de pilotage te loolu la population est restée à sa fin mosoo génn nga expliquer population yi naka la ak nan la kon loolu lañ amoon pour wax Kaarang nag mun nañ waronte mais munuñ naxante je crois que fii bépp tuuma wala bépp nit ku ñëw ci plateau toog di wax lu la neex nit ñi dinañ ñëw indi texte yi ñun ay texte lañ indi caméraman yi nag su leen neexee ñu jël texte bi mu ngi nii ñun bi binduñ ko état du Sénégal moo opté pour pour pour ay offre waa Kaarang aussi ku ci bëgg te amoo texte bi soo ñu jegee ñu jox la ko nga photocopier ko nga xam ne maire encore une fois lii di comité de pilotage bi mu fi teg di gëmal nit ñi ne daf koo jaar ci yoon jaaru ci yoon tey jaaru ci yoon suba parce que dégg nañ ko muy wax loo xam ne gàcce la ndax bu nee moom li tax li ko teree dem ci quartier yi mooy xam na ne waa asifor yi ñoom ñoo fay dem bu demoon ci quartier yi waa asifor yi fi jógee ñoom ñooy dem xupp population bi kon jàppee na dèjà population ay ragal ko population ba pare ñëwaat dellu siwaat si comité de pilotage bi te ñooñu wóoruwul leen parce que jubuñ yow yaa ko wax donc loolu waa ASUFOR yi fi jógee war nañoo mën a tontul seen n'est-ce tontul seen bopp mais bokk na ci luy ormal doomu aadama nga ne ña nga wóolu nga tànn am na quartier yoo xam ne tànnoo parce que wóolu woo kenn su fekkoon waa Kaar ak noonu lañ la def tey doo yor ndombo tànk maire asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw asalaamaaleykum mbokki Karang euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam euh, di leen naan euh, ñun collectif usager des forages de Karang ñoo fi teew tey bëggoon waxtaan ak yéen tuuti rek ci li nga xamante ne mooy sorti bi maire def démb interpellé ci ñi nga xamante ne ni daanaka ñoom ñoo taxaw di diingat ni mu taxawalee kuréel boobu noonu muy comité de pilotage bi mais aussi xaalis bi mu génnee lam bi mu ko génnee lam ca wax ak liñ ci li ci mëj a am bokkul donc tey suñ présence fii loolu kese la may fàttali askan bi rawatina kilifa diine yi ak kilifa aada yi que seen njaboot ñoom ñoo toog seen kanam li ñuy njëkk a def nag mooy tàllal loxo rek di sàkku ñaan di leen di wax ne li ñu def ci fii tey nekkul kenn si ñun koo xam ne dafa am problème mu robinet nekkul kenn si ñun koo xamante ne dafa am jafe-jafe waaye dañ gis ne askan bi ñun dañuy jóg toujours ne askan bi lañu ñu nekkal kon bu ñu demee ba gis ne nootaange loraange mu ngi war a dal ci kaw askan bi war nañ mën a jóg taxaw temm xeexal askan bi loolu nga xamante ne mooy ay njëriñam kon suñu teewaay tey fii loolu moo ko waral e, may ñëw rek ci historique bi nga xamante ne ni moom moo lal e, li ñuy tuddee OFOR histoire OFOR avant OFOR di am Eh, li ñu naan ASUFOR ñoo fi nekkoon muy association des usagers de forage mu amoon nu ñu ko doon tànnee léegi depuis atum 2014 maanaam Macky Sall bi mu ñëwee ci pouvoir bi bi mu defee ñaari at moom ci wàllu boppam dafa ne dafay def ay réforme ci wàllu ndox mi parce que bëgg na ndox mi eh, mu baawaan eh, saawaan comme ni ko maire doon waxee démb donc loolu moom moo indi réforme bi ñu gis ne réforme bi 2014 la tàmbali bi mu tàmbalee 2014 et le 17 août 2016 fi nga xamante ne mooy bu Toubacouta jamono yooyu noonu sous-préfet bi fa nekkoon ñu ngi ko tuddee Aboubacry Diop Aboubacry Diop moomu noonu moom moo taxawaloon comité ad hoc muy comité transitoire bi nga xamante ne moom moo ŋànkoon eh, forage u Karang jamono yooyu suñu deuxième forage bi amaguñu ko eh, bi mu taxawalee comité de pilotage boobu eh, ki nekkoon président bi moom ci boppam la muy Aboubacry Diop ki toppoon ci kawam muy maire commune bi ki ko ñetteeloon muy président Asifor muy Almami Konté kon boo leen xoolee ba ci biir mu nekkoon une commission tripartite maanaam commission boo xamante ne ñett nit ñoo ko ŋànkoon kenn ki moo nekkoon su sous préfet boobu ma tudd Aboubacry Diop ñaareel bi moo nekk maire ki nga xamante ne mooy maireu dëkk bi e mu nekkoon membre ci comité boobu noonu ak Almami Konté moo nekkoon troisième membre bi ñett ñooñu ñoo ŋànkoon doxalinu comité bi waaye dafa am lu xew ci diggante bi comité boobu biñ ko lalee eh, sous-préfet bi nga xamante ne moo ko taxawaloon dafa jalgati yoon. Eh, bi mu jalgatee yoon nag ki nga xamante ne mooy ministre de l'intérieur jamono boobu noonu di Abdoulaye Daouda Diallo yéegul ko waaye ci atum 2017 eh, muy 24 avril 2017 dafa am benn circulaire bi nga xamante ne gouverneur bu Fatick bu ñu naan Souleymane Cissé jamono yooyu moom moo envoyé benn circulaire ci li nga xamante ne mooy arrondissement yi nekk ci département bu Foundiougne mu demandé leen à ce bépp commune boo nga xamante ne forage mu ngi fa nañu taxawal li nga xamante ne mooy comité de pilotage yi nga xamante ne nii moom mooy fonctionner ci cadre OFOR muy office des forages ruraux loolu ci i atum 2017 euh, 24 avril léegi bi ñu jógee circulaire boobu noonu nga xamante ne muy ñu ngi ko signé le 24 avril 2017 le 29 avril 2019 dafa am beneen circulaire bu bees circulaire bu bees boobu génn ki ko envoyé ki nga xamante ne mooy sous-préfet yi ci département bu e moom moo nekk Abdoulaye Daouda Diallo moom nee na yeggee nañ ko ne am na ay communes yoo xamante ne sous-préfet yi dañoo immixé wu maanaam dañoo dugg ci li nga xamante ne mooy comité de pilotage bi mu yégee loolu moom ministre de l' intérieur Abdoulaye jàllo Diallo mu naqarlu ko si la envoyé circulaire boobu noonu le 29 avril 2019 circulaire bi ki nga xamante ne mooy actuel sous-préfet mu jot ko muy monsieur Ly le 10 mai 2019 la jot su kii euh, circulaire boobu bi mu jotee circulaire bi. Eh, li nga xamante ne moom la ko ministre bi demandé mooy képp koo xamante ne sous-préfet la ci département bi na génn ci comité de pilotage boobu noonu li nga xam ne mooy koppar yi ni nga nekk ci comité de pilotage bi na ko sous-préfet bi sori loolu moo indi comité de pilotage ba nga xamante ne Aboubacry Diop taxawaloon na ko ku ni sous-préfet nekkoon ci président mook maire ak ki nga xamante ne mooy président Asifor doon buum di bummi ñooñu ñu génne leen ci mbir mi mu war a desati nag fi mu toll ni taxawa comité de pilotage bi nga xamante ne dëppoo na ak texte yi sous-préfet moo njëkka jalgati texte kilifaam di le ministre de l'intérieur en l'occurrence Abdoulaye Daouda Diallo yëg ko wañ loxoom ne ko génn leen ci comité yi ñu tas comité de pilotage boobu ñu ne leen taxawal leen comité de pilotage bu bees ci biir loolu noonu lañ leen ne comité de pilotage bu bees boobu ngeen di waaj a taxawal comme ni ko suñu naataango Ibrahima Thiam waxee mu ne comité de pilotage boobu ngeen di taxawal maire ci li nga xamante ne mooy circulaire bu mujj moom mooy nekk président comité de pilotage boobu noonu mu wax li nga xamante ne moom la Ibrahima Thiam wax mu ne dina am ñett ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo fay teewal li nga xamante ne mooy conseil municipal bi am ñaar ñoo xamante ne ñoom ñoo fay teewal éleveurs yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi yëngatu ci activité yu am doole ci biir dëkk bi mën na doon commerçant yi mën na doon chauffeurs yi mën na doon béykat yi ci naako yi e ñetteelu ponk mu ne war na am ñett représentant yi nga xamante ne ci ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo ndox mi lañ war a jóge waaye nag bi muy naan ñett représentant dafa jàppoon ne Kaarang maanaam communauté rurale la te boo leen xoolee arrondissement bu Toubacouta juróomi commune ñoo fi nekk mooy commune bu Kër Samba Gueye commune bu Nioro Alassane Tall commune bu Kër Saalum Diané commune bu Toubacouta ak commune bu Kaarang ñeent commune yi ma njëkk a tudd yooyu noonu ay communauté rurale lañ woon suñu commune bi moom moo nekk commune urbaine mais acte trois de la décentralisation bi mu duggee léegi dañuy yemale statu commune yëpp ñu tuddee leen fi mu toll nii dans le cadre de ce qu'on appelle la communalisation universelle ñëpp ñu tuddee leen commune loolu moo tax effort des fii ci Kaarang mais ci yoon Kaarang du doon dépendre sax ci arrondissement bu Toubacouta si préfecture bu Foundiougne lañ doon dépendre teg yu bees yooyu ñu tuddee acte trois ñoom ñoo indiwaat Kaarang ci arrondissement bu Toubacouta ci comité de pilotage bi nga xamante ne texte bu bees bi indi na ko muy circulaire bu 29 avril 2019 moom moo ne mooy président waaye nañuy tànnee mooy ñooñu ñu limal leen te Ibrahima Thiam ñëwoon ci. kon bu fekkente ne maire dem na ba ñooñu noonu tànneewul leen ni mu leen war a tànnee ñu dem ba ci biir ñu gis ne euh, comité de pilotage boobu noonu am na jafe-jafe jafe-jafe bi mu am mu ngi tàmbalee keroog bi nga xamante ne maire taxawal na comité bi. ñu def passation de service passation de service bi ñu ngi ko def le 9 12 2019 ci procédé verbal boobu noonu liñ ci bind mooy et fee ci crédit mutuel compte bi nga xamante ne Azufor moo ko moom 13 millions 388 mille 014 francs moo fa nekk. et li nga xamante ne moo nekk ci kees bu monsieur Sow téye woon 1 million 418 mille 665 francs moo fa nekk. li nga xamante ne boor la woon waa Asifor waroon ko fayeeku mu ngi toll woon ci 4 millions 698 mille 400 xaalis boobu noonu yëpp boo leen ko boole mu ngi war a tolloo ci 19 millions 505 mille 079. loolu noonu normalement comité de pilotage bi nekk fii loolu noonu la waroon yor ci ay keesam léegi nag li wóor ba leer mooy 14 millions 806 mille 679 comité de pilotage boobu noonu loolu mu ngi ci keesam. 4 millions 698 mille 400 dañuy laaj maire en tant que président comité de pilotage actuel bi recouvrer nga xaalis bi waaw nga la déet loolu question la bu ñu lay yóbbante bu fekkee recouvrer nga ko alalu askan bi la ñib siwaatal ci télé bi nga jàkkaarloog ñoom ne leen seen 4 millions 698 mille 400 recouvrer nañ ko et eh, mais li gën a doy waar ci mbir mi mooy gis nañ dafa am entreprise bu bees boo xamante ne moom moo gagné marché bi entreprise bu bees boobu gagné marché bi nag e moom tudd na turam man xaw ma entreprise bi wër naa ci internet bi gisuma benn donnée entreprise bi li gën a doy waar démb maire bi mu paree interview gis nañ benn représentant juridique entreprise bi un certain Sieux Sarr mu gënn di demander population bu Kaarang ñu ñëw signer ay contrat ñuy yëgal monsieur le maire ne entreprise bi d'abord ñun bi mu fi ñëwee daf ñu ne woon monsieur Wade kooku moom moo signé ak li nga xamante ne mooy comité de pilotage bi contrat yi ñu yor monsieur Wade nekku ci contrat yi ñu yor ñi ci nekk mooy ñan benn jigéen bu ñu naan Jeanne Marie Ndew Diouf kooku mooy kii représenté entreprise bi te moom bi mu ñëwee Mouhamed Wade la wax Mouhamed Wade boobu mu ngi ci procès verbal bi nga xamante ne moom la ñu signé le 9 12 2019 kon am na lu leerul ci mbir mi maire boo ñu déggee ñu ngi lay interpeller ci turu Kaarang ci trou usager yi nga xamante ne nii ñooy jëfandikoo robinet yi Kaarang nee nga tamit euh, war nañ dem signer contrat ak waa ji contrat yi waa ji signé ak waa Kaarang baaxuñ man maa ko wax parce que contrat minimum dafay am ñaari parti yu ko signé benn parti bi da nga koy gis ci yii contrat yeneen contrat doo ñaari parti yi ngay gis te li gën a doywaar jigéen boobu la ñuy gis te ñun Mouhamed Wade lañuy waxoon loolu noonu nag jaaxal na askan bi te yow maire war nga ko leeral dëgg nañ la démb nga naan kaarang dañuy wax ci gestion xamuñ lan mooy gestion mais maire yaa xëyti comme ni ñu koy waxee fii kan moo fi gere kenn géré wu fi yaay gere kon bu fekkente ne am na kenn koo xamante ne gestion tëna ko mbala jaaxal na ko yow moomu la dëgg nañ la nag nga xam-xam mooy yor am na ñu fi nekkoon amuñ xam-xam loolu moo tax mënuñ woon doxal gis nañ ne eh, yow bi nga ñëwee alal bi ñoo ñu bàyyi yoon fii muy dix-neuf millions et moom ngay doxale ci alal boobu yaa ko waxal sa démb bopp démb bi ñu la posé question quatre millions yi foo ko jëlee quatre millions quarante six yi nga wax nga ne quatre millions yi ci xaalis bi ñu fi bàyyi nga ko jëlee donc monsieur le maire bu fekkente ne ñooñu dañu liggéey bàyyee la nga wëlbateku jël seen doole di ko wéyee am na lu la war sa digganteeg ñoom mooy li tubaab bi naan reconnaissance nit ki boo ko dimbalewul mayoo ko bàyyi ko li nga xamante ne moom la yellool ñooñu sant ak ngërëm la ñu yellool naam monsieur le maire yaag ñoom yéen a nekkoon ci comité de pilotage bi pendant trois an parce que depuis le 17 août 2016 ci comité de pilotage bi nga xamante ne Aboubacry Diop moo ko taxawal yow yaa ci nekkoon membre ak Almami Konté ak Aboubacry ci boppam pendant trois ans yaa ngi liggéey ak moom waa Karang pendant cinq ans ñu ngi am problème mu ndox forage bi nga xamante ne muy deuxième forage bi bi ñu fi génnee def marche dugg nga fi ci tele bi façon kaddu bu nekk sànni nga ko doomu aadama yi tey forage boobu ngay xëccoo jiite ko monsieur le maire li ñu bëgg mooy nga bàyyi sa xel nga bañ a jaxase nit yi ak askan bi parce que askan bi ñoo la fal boo toogee naan maanaam am na ñoo xam ne ñu ngi lay woo naan la kaarang ñooñu xanaa ci ban siècle la ñuy dund monsieur le maire ci siècle bi ngay dund la ñuy dund muy vingt et unième siècle boobu ñuy dund nag taxaw nañ ci taxawaay bu rafet ba xejal la ba fu jàppale la fal suñuy papa ak suñuy yaay suñuy bàjjan ñoo la fal loolu nga xam ko booy wax ak nit yi nga xam nooy waxee wax ji na xaw a rafet te nga xam ne say nawle nga fi ñëw dem élection joxuñ la dara nga ñëwaat dem nit yi doy loo la buñ la doyloo fal la nag am na lu ñu amoon ci yow yaakaar juróomi at toog nga ko fi defoo extension yaa ngi ñu tuddal extension forage bi nga ex forage bi nga bëgg a politiquer actuellement dañu lay ñaan nga arrêté ko nga xam ne waa Kaarang biñ toll ni taluñ politique feebar bi tere na jigéen ñi liggéey feebar bi tere na borom kër yi ñu liggéey ku ci nekk tey mu ngi jaaxle di ut ku ko jàppale yow monsieur le maire lu ma 30 millions tëdd ci kees boobu noonu parce que ñetti weer yi ngeen ñëw yow yaa ne ci 1773 abonnés yi li ngeen di am par weer 5 millions bi teg na kon boo jëlee ñetti weer yi 5 millions multiplié ko par 3 mu jox la 15 millions ak 15 kay kii 19 millions yaa nga xamante ne ñoo fi nekkoon presque 30 30 30 bu teg la. boo ci génnee 4 millions xaalis bi si des xej na ci askan bi jàppaleel askan bi loolu mooy priorité bi loolu mooy wax bi loolu mooy politique bi mais li nga nekkee. E, yaakaar naa ne teyoo ko parce que président la république bu wootee ne maire maire yi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal nañ def ni ma def nañ woo opposants yi nañ woo kilifa diine ñu ànd xeex li nga xamante ne mooy Covid 19. Covid 19 tey moo tere ñëpp nelaw waa Kaarang nag lenn rek moom moo leen metti mooy gis nañ sa morom yi ci département bi gis nañ sa morom yi ci région bi gis nañ sa morom ci biir senegal ñu ngi dégager ay millions di gunge néew di doole yow nga toog ne dañ laa tënkoon monsieur le maire le 4 février 2020 lañ la votel sa budget budget bi ñu voté ren 152 millions la 414 ak weccet 152 millions yooyu noonu ak weccet amoon na 7 millions yu desoon ci kees bi am na 40 millions ak weccet bi nga xamante ne fonds de dotation de la décentralisation ak fonds d'équipement des collectivités locales la ñëw bokkut ak li nga xamante ne app nañ ko si 6 millions Sénélec war la ko yóbbante bokkut ak li nga xamante ne eh, waa Sonatel ñu ngi la ko war a yóbbante ci wàllu publicité ay 2 millions bokkutak ñaari weer yi nga xamante ne diggante mois de janvier ak février feeku nga ko avant feebar bi di dugg ci réew mi parce que feebar bi le 2 mars la dugg ci réew mi. millions yooyu noonu nag ñoo ngi lay ñaan nga jënd ko ay tonnu ceeb dem ci quartier ña nga xamante ne amuñ bourse te binduñ leen ci li nga xamante ne mooy programme ndimbalu Macky Sall bi nga jàppale leen xaalis boobu parce que loolu moo tax ñu fal la faluñ la pour nga téye seen xaalis. faluñ la pour maanaam weer bu dee nga dem feeku sa 300000 nga jël sa 4 millions ak leneen ak leneen tey askanu Kaarang moo soxla parce que tey feebar moom moo dal seen kaw. donc monsieur le maire ñoo ngi lay ñaan booy demati ci télé di wax di joxe information yi nga xamante ne dafa dëppook ak taxi dëgg la ñun suñ jàng soriwul yow la sa jàng sori jëlal suñuy rakk amaana bu ñu ñëwee ñoom dinañ mën a wax ak yow ci côté boobu noonu. tey naam am na suñuy rakk yoo xamante ne ni taxawaay boobu noonu nga am. yaakaaru yaakaaruma ne ñoom dinañ ko am parce que jànguñ xamuñ dañuy liir monsieur kan ngay waxal say élève ngay waxal wala say nawle ngay waxal wala yaakaaru dëkk bi ngay waxal ñun njabootu dëkk bi lañ munoo ñoo xoqatal dañu lay dégg ci télé bi nga naan am na ñoo xamante ne nii tey su ma waxee dinañ daw génn ci dëkk bi def nga ak ñoom ñett at ci kuréel boobu noonu bu daw di am yaay jiituñu topp sa ñoom ñu topp sa ginnaaw politique bi bàyyi ko xoqatal bi bàyyi ko fii kenn ragalu la ay texte moo tënk nit yi loolu noonu nag dafa am benn principe juridique bi ko wax comme que nee nga jàngu ñeew mi jàng boo ñëwee ñan njàmmaarloog yow principe bi nee na au-dessus de la loi point d'autorité en dessous de la loi point d'autorité mooy ci kaw loi bi kilifte amu fa ci suufu loi bi kilifte amu fa yow nag bu la neexee yaa ngi ci suufu loi bi ronu loi bi bu la neexee yaa ngi ci kaw loi bi loolu noonu nag lañ bëgg nga bàyyi nga xam ne ci état de droit la ñu nekk te ñun teg si ñoom ñoo ñu may lii ñuy def nii parce que contrôle citoyen la ñu wax lan mooy contrôle citoyen mooy ña ngeen dëkk dënk am ngeen sañ-sañ ngeen saytu la ngeen leen dënk nañu nan lañ koy yoree te lii may wax nii ba muy xew boobu ñun xalaatuñ ne sax dina ñëw si àdduna parce que li nga xamante ne mooy déclaration universelle des droits de l'homme bu 26 août 1789 boobu moom moo ne dërëm boo jël bu nekk dugal ko ci li nga xamante ne mooy ay dépense askan bi am nañ sañ-sañ am nañ sañ-sañ ñu laaj la dërëm boobu noonu fan la dugg te monsieur le maire reddition des comptes nag loolu Macky Sall bi mu ñëwee moom ci boppam moom moo ko santaane mooy dërëm boo yor bu nekk war nga wax nit yi fii laa dugal dërëm boobu noonu donc ñun liggéey bi ñuy def nii ci cadre boobu noonu la inscrire e suñu mag nga suñu kilifa nga nangul nañ la cër boobu yàlla moo la fi teg mais nangu ne ñu nit yàlla moo ñu fi bàyyi te li nga nekk di bëre tey yàlla moom moo ñu ci woo kon nag bu ñu demee ba ñu bokk géew gi tool bi yaatu na ku ci nekk ak waaram nekkal si sa waar baañu ñu si suñu waar bu fekkee tool bi nag ñun ñëpp war a bokk ñu béy ko mu set ngir njëriñu ñëpp war nga nangoo joxanteeg nit yi loxo te loolu nga bañ ñoo ngi lay ñaan nag ndaje bi ngay woote fan yii di ñëw nii eh, nga dégager li nga xamante ne nii mooy xaalis bu bëree bëri pour gunge waa croix pour gunge xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci frontière ba pour nga appuyer ñi nga xamante ne ñooy néew di doole yi. 1773 clients yi nga wax bëgg nañ nga fayal leen li nga xamante ne mooy ndox feeg ñetti weer jëm ñeenti weer parce que xaalis bi nekk ci kees bi attan na ko te sëñ daara yi ay benn saako yi nga yóbbu ci biir kë kii sëñ kër sëñ daara ñaari saako ñett saako ñeenti saako. et eh, monsieur le maire loolu tuuti na trop. daara boo xam ne lu mot juróom-ñett fukki ndongo mu ngi ci mbala lu ko ëpp nga jël lu met ñeent saako ceeb nga yóbbu ko lu loo xamante ne fi mu toll ni ëpp na ñaari weer xale yi dematuñ yelwaan sëñ daaray fi mu toll nii fu ñuy jëlee xaalis jaaxal na leen yàlla dong lañ yaakaar ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñëw yërëm sëñ daara yi yërëm ndongoy di leen jàppale tey bu doon yow kese lañ xaar yaakaaru ma ne daara kaara ngi tey jàmm dina fa am waaye yàlla mi dara mu ngi leen di gunge comme ni ko benn kilifa diine waxee wax na ko keroog nee na avant ndimbal bi di ñëw nit yi ñu ngi leen di dimbale kon nekkul maanaam ndimbal boobu nga yóbbu foofu noonu moom mooy tax du tax daara yooyu noonu taxaw moom mooy tax daa taalibe yooyu noonu dund donc monsieur le maire ñu ngi lay yëgal ne euh, population bu Kaarang sonn nañ jamono yu ñu toll nii yow da maanaam ordonnance bi nga xamante ne signé nañ ko muy ordonnance numéro euh, double zéro cinq deux mille vingt ordonnance boobu noonu dañ la takkoon dañ la tënkoon yaa ngi door a yeewee monsieur le maire bañ la yeewee depuis le 4 février 2020 lañ la votel sa budget ñu ne la budget baa ngi nii li nga xam ne war na dem dispensaire na génn dem yow si sa budget nee nañ la aide aux personnes nécessiteuses monsieur le maire man maa ko wax sëñ daara yi li nga xam ne mooy budget bu kaarang boo leen fa demee ngeen xool ko maire dafa war a appuyer daara yi lan moo tax at yi yëpp demul ci télé yi mu ne leen votel naa leen budget nangamu million pour jàppale leen mu bàyyi ba crise bii ñëw xam ne doomu aadama yi jaaxle nañ sëñ euh, taalibe yi jaaxle nañ askan bi jaaxle na mu bëgg a fi mu toll ni utiliser occasion bi pour def politique. asalaamaaleykum waa Karang ñu ngi leen di nuyu à travers suñu TV ak euh, Saloum TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru koor di leen baalu ak di leen baalal di ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu mu nangul ñu ko. dañuy andi yenn yenn leeral yoo xam ne suñu camarades yi tëb nañ ko rek mu jëm ci li nga xam ne ni moom la. Euh, monsieur le maire xaw ma président comité de pilotage bi tantôt mu nekk monsieur le maire tantôt mu nekk président comité de pilotage euh, loolu moo tax ñu ñëw andi pour leeral tuuti rek euh, wax na fi problème mu 500000 yi nga xam ne moo nekk moom lañu def police nit ñi wax nañu ko mais ñun amuñu benn problème ak police comme ni nga ko waxee démb noonu la demee police su nekkee ne démembrement démembrement état la la nekk tamit. moom mu war leen a jàppale euh, foogoon naa war na ko mën a inscrire ci budget budget commune nu Karang mais encore une fois demal école 1 école bi nga xam ne mooy école tuteur tuteur moom mi nga xam ne fa la jógee balaa mu nekk maire dem fa si école bi. Euh, dem nañ fa visite boo xam ne dañ ko def euh, waxtaan ak directeur décole bi même boo demee si li ñuy tuddee école directeur ba sax ah, nag bureau directeur sax sa sa sa xel sa sa xol day day naqari trop. ci école boo xam ne nii moom la ñu wax ne mooy école cosaanu dëkk bi ndax école boobu noonu police da ko gën a prioritaire te euh, euh, éducation dafa bokk si domaine transféré pour collectivité locale yi balaa ngaa laax jaay nag dafay fekk nga laax lekk ba pare su nekkoon dafa defaroon école yi defaroon santé bi defal lépp ba mu mot su defalee police amul leen lu ko jox te police euh, comme ni ko waxee ministère de l' intérieur lañ bokk ministère de l' dafa am budget boo xam ne da mu ngi wax Euh, souvent boo jaaree hôpital boo jaaree naka la tuddee au niveau de la police ministre moo fay jaar bu ñu bëggee gis seen bopp mbala naka la bu ñu bëggee gis mais c'est vrai loolu am na mais tey <laughs> hôpital comme ni ko Ibra Thiam waxee sànq amoon nañ problème ndox xanaa foofu ñii duñ fay dem sutura duñ fa am sutura euh, ah, boo demee école tamit école 1 tey salle de classe yi euh, boo demee si sol bi dara baaxatu fa. zeng yi dara baaxatu fa xanaa foofu waruñu fa waruñu fa jàppale suñu doom yi nga xam ne suñu doom suñu jarbaat suñu tout tànk yi nga xam ne ñoo fa nekk Euh, war na leen war na mun leen jàppale ci côté boobu noonu. Hmm. ci biir waxam dangay dégg carrément mu ne euh, dafa am ñoo xam ne leen a copte ci comité de pilotage bi te comité de pilotage bi comme ni nga ko waxee texte bi lu mu wax amul lenn loo xam ne nii wax na ci copte mbaa wax ci ne diw moo ci war a nekk mën a mën a diw moo ci war a nekk li mu wax lu leer la waxul ne mag moo ci nekk waxul ne gone moo ci nekk waxul ne jigéen moo ci ne comité de pilotage ni ko Ibrahima waxee li mu wax lu leer la dafa ne collectivité locale moo fay nekk éleveurs yi ñoo fay nekk ak maraîchers yi ak euh, euh, nekkatule les abonnés kon donc bu mu ñu bu mu ñu sonal ci wax yi nga xam ne nii mooy waxu dañoo copte voilà mu ngi wax ne tamit dafa am conflit boo xam dafa am diggante diggante naka la euh, population bi ak diggante ñi nga xam ne ni ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo yore ah, jeunesse bi ñu won ko wax ne conflit amul foofu noonu te bu mu boole bu mu ko boole ñaari mbir yu bokkut su may réunion damay woo imaam yi damay woo délégué de quartier yi loolu amul ci comité bi loolu pour jaxase naxase ah, jaxase ah, naka la population bi la dem nañ ba benn moment dafa dem ci quartier yi ne moom wóoluwul kenn pour dénk ko forage bi te monsieur le maire encore une fois kaarang dañu woo dañ la woolu dénk l kaarang yow mi nga xam ne dañ la wóolu jox la kaarang rawatina nag waa kaarang yooyu nga ne wóolu woo ci kenn kenn kenn pour déngu ko forage bi comme ni ko docteur Abdourahmane Diallo waxee sànq yow waxoon waroon nga waroon nga mun a am beneen xalaat bu dul ñëw ne damay diriger comité de pilotage parce que boo demee Passy ka nga xam ne moo yore comité de pilotage ba du monsieur le maire Adama Cissé de Adama Cissé sax yëguloon ne euh, comité de pilotage taxawal nañ ko foofu noonu amin ne bi nga avant ngay dem gestion tripartite bi fi nekkoon yow ak président allemand bi sécuriser woon ngeen euh, forage bi ba fii ak ay ay at forage bi du am problème parce jënd ngeen ay pompe yow yaa ngi dégg yaa ngi dëggal li nga xam ne moom la waa Agifor waxoon bu ñu bàyyi nañ fi ñetti pompe ñetti pompe yooyu nag xëy na yow da nga bëgg a ñëw nasaxal seen wax ne ñoom ñoo ko fi bàyyi nga ne yow yaa ko fi yaa yaa ko yaa ko sécuriser mais boo ko sécuriser woon kon diggante bi nga xam ne jël nga comité de pilotage ak léegi forage bu bees bi ñaata yoon la paan ñaata yoon la paan dégg nga encore jël nga euh, da naka la 2 yoo xam da nga ko def ci euh, naka la tuddati ci ci station bi nga xam ne def na ko carte jàmm ñi nga xam ne ñoo joxe carte jàmm ak sañ saadi monsieur le maire ragalal yàlla doomu adama day ragal yàlla tey wax li nga xam ne moom la euh, yàlla bëggu mooy que ne day wax waxal li nga xam ne moom moo am li am bu des mooy yaa ngi jël forage bi comme ni ko docteur Abdourahmane Diallo waxee sànq ak maa kii rek yaa ngi jël forage bi pour politiser pour politiquer ko mais ñun moment bi ñu toll toll ñu ci wàllu politique ci wàll 2000 francs yi nga xam ne moom nga wax ni fayale nga ko usagers yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ci biir dëkk bi mooy borne ah, privé privé yi monsieur le maire encore une fois bu dee comité de pilotage moo ko moo ko décidé ah, li nga li nga li nga li nga sant ñi nga xam ne mooy agent ah, naka la tuddee yi nga xam ne ñooy gestionnaire forage bi tey ñu dugg si biir kër yi képp ku dugg lañ lay wax monsieur le maire monsieur le maire moo la fayal 2000 francs yi ndax monsieur le maire moo fay am comité de pilotage moo fay loolu tam nuance la de su dee 4 millions yi nga xam ne yaa ko fay alhamdulilah ñu tàccul la à chapeau ne yow monsieur le maire moo génn si poosam fay 4 millions pour la population mais démb nag li ñu dégg c' contrairement ak li nga xam ne ñiy joxe facture ci biir kër yi dañ leen ñëw ne la monsieur mooy la fay 2000 francs bu nekkee ëpp na 2000 francs les des yaa koy fay xaalis bu jóge woon ci aji for la ñun ñu cotisé woon ko ñun ñi nga xam ne ñoo doon fay démb ak barki téem mu delluwaat si ñun kon ñu xamal population bi ne monsieur le maire fayalul kenn 2000 francs xaalis boobu noonu suñu xaalis la woon waa aji for yi fi nekkoon ñi nga ne dañ ne defuñu fi dara ñoo ko dajale ba mu mot 14 millions 14 millions yooyu ci leen delluwaat 4 millions 3 millions 540 500 euh, mille 546 euh, mille moom leen delluwaat population boobu noonu kon ñu xam ne du monsieur le maire moo ñu fayal beneen bi mooy que ne euh, nee moi je toujours que ne euh, doomu aadama buy wax na xool bu baax li muy wax lii nag day day jàngalaat bu baax ñi nga xam ne ñu ngi dem bureau monsieur le di toog ak moom di wax ñu xam ba nit la ñuy waxal parce que bu dee yow heure bu ñu leen ñu saqatalee rek la nga xam ne moom nga seqoon nit barki démb ak barkaati démb nga waxoon ko ak moom da nga toog ne ñii ñëw sama bureau li ñuy wax ak man ak li nga xam ne moom la ñuy wax ci ron garab ak réseaux sociaux yi du benn kon kooku war ngeen xoolaat seen bopp moo xam ki ngeen waxal kan la dégg nañ la si sa biir wax nga ne waroon nga def assemblée générale le 23 mars bi mbas moo tax nga defoo assemblée générale monsieur le maire diggante bi ñu la taxawee le 24 bi nga defee passation de service le 24 novembre ak le 24 euh, ak le 23 23 mars ñaata weer la. man dama yaakaaroon ne bu dee da nga def réduction euh, des comptes chaque weer war nga mun a def ni aji for doon def boobu def rapport boo xam ne nii comme tey yaa ngi taxaw di ne def naa 4 millions rek. xalaat mi yoo xam ne liggéeyuloo ko def nga ko rek nga tam chaîne câble yeeg télé yeeg réseaux sociaux yëpp ne taxaw ne fayal naa leen 2000 2000 francs par par par kër a wax ah yàlla bu bu bu bu su ah, gestionnaire bi liggéey ba pare jox nañu nangam nangam bi fii ak fii ak lañ ko dugal monsieur le yaa te dañ ne li texte yi wax mooy que bureau boobu nga xam ne taxawal nañ ko muy bureau comité de gestion ah, comité de pilotage bi mais waruñu fayee ko taxi yaa ngi fi ñoo ko ba mais yaa ngi fee indemnité ak ak ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñi ko ñi ñuy waxee nag noonu la demee rek amuñu problème ak secrétaire général amuñu problème sax ak yow. taxi li mu wax bu dee yaa ko war a diriger na ko diriger mais lii war mooy que ne ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo war a bokk ci comité boobu noonu te quartier yi war leen a tànn bàyyil quartier yi tànn éleveurs yi ñoo war a tànn bàyyi éleveurs yi tànn ñun loolu rek la ñu am problème de a Maimouna Sissoko boobu nga tudd tudd fa ah, Abdoulaye Khad Fall bu ñu jëlee woon si escale 2 escale 2 choisir ma ah, Abdoulaye Khad mu ñëw toogal leen day gën a neex rek parce que bu subaa bu amee loo xam ne jalgati nañ ko waa Escale 2 dinañ mën a ñëw ne Abdou Abdou Lahad Fall yow mi ñu tànnoon lan moo nekk forage même na Sissoko bu ñëwoon suñu quartier Escale 1 tamit ñu ko tànnee la même chose parce amuñu lenn loo xam ne lu leen reproché ñoom ñu ngi dëkk bi dañu yore ay borne di naan ci ndox mi kon war nañ leen mën a tànn ñu représenté ñu mais nag waruñu toog ci benn bureau rek tëju fa ne may mën a Sissoko lañ yow na xëy na yow texte moo la may nga war a nekk koo xam ne ni mën nga bokk ci bureau bi mais ñee nag texte bi leen wax mooy que nañ dem ci quartier bi ñu ñu naka la tuddati ñu leen beneen bi mooy que ne ñun conseil municipal yi nekk fii yàgg nañ la woo mbas bi taxawee dans tous les commune yu Sénégal foo dem am na comité boo xam ne moom lañ tuddee comité de riposte bu Covid 2000 euh, Covid Covid Covid 19 mais au niveau de la commune de Karang amut. yaa ngi ne nit ñi dañ yàkkamti parce que réunion mënatul am nangam ak nangam mais réunion ñaata réunion ñoo fi am bi Covid bi amee commencé ba léegi. bi ñuy def commission commission ciblage si ménage si biir quartier yi ñaata nit ñoo daje mairie ëpp na une cinquantaine conseil municipal 40 lañ. est il ñu nga benn yoon pour woo conseil municipal ne nañ toog ñu xool conseil municipal yi nekk fii nag poussé nañ la du benn yoon du ñaar yoon pour nga woote ñu toog parce que mbir mi lu mopp ñëpp bokk dañ ko war a pencoo waaye waruñu ko paacoo ci mbir mi na da nga yaakaar ne am ah, séddale bukki la bii bukki moo ko moom bii bu ah, njuur bii maa ma maa maa ñaa ci njëkk teg sama loxo teg naa sama loxo. kon ñu ngi gërëmaat bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ bokkaloon ah, mbir mi di leen wax encore une fois que ne comité bi nga xam ne moom nga taxawal ne di booy woote dangay ngay woo jigéen ñi mbaa nga woo. imaam yi mbaa nga woo délégué de quartier la loolu amul si texte bi texte bi lu mu wax mooy que ne ñii ñoo fa war a nekk ñii ñoo fa war a nekk mooy ci ñii ñu fa nekk war a nekk mooy que ne maraîchers yi la ñi koy utiliser mooy abonné ak yow ak conseil municipal conseil municipal li si Abdou wax rek doy na docteur Abdourahmane Diallo li mu wax lu leer la amul benn yoon boo xam ne conseil municipal wax na ci ñuy gën a maat Saloum TV euh, di gën a maat tamit Sun TV vraiment ci opportunité bi nga xam ne noonu moom la ñu may nag li ko waral nak mooy que ne dindi tuuma euh, nekkul nekkul ragal parce que démb la maire toog ci télé bi wax carrément que ne lii ak lii ak lii la demee kon baax na ñun tamit ñu def réplique bi ñëw leeral askan bi leeral rek lañ ci jublu nag. ba ñuy def marché bi en le 28 février ñëpp nañu yaakaaroon ne lii ñuy def nii xëy na pour ñu lañ suñ bopp lañ ko defaloon mais tey l'histoire nous a donné raison. histoire jox nañu raison tey ba mu laalee te 4 millions yi lañ yëg rek de moom ci biir wax xam démb won ñu ne. station ndox bi mu def au niveau de euh, Santhi Sadi def ko Escale 2 ci xaalis boobu la ko jëlee kon bu ñu waxuloon si 4 millions yi kon loolu duñ ko yëg ñu ngi nuyuwaat ñëpp di jërë ñaar euh, bu nekkee ne am na lu juum ci wax ji nga xam ne doomu aadama bu motul mooy wax rek lu baax ngeen xam ne yàlla la ñu ngi gërëmaat ñëpp di leen sant di leen jégaluwaat bu baax.